Mustafa santal dayab fi gën santal dayab cant yaa amul ku lay ka ngaayoo ci Mustafa barra'ani al-baaqi al-amraadi wa kabba man ankara bi برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له شكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شربوا من عزبه وللجنان قربوا هزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لأذن خيري يجود للجواد بالجياد وسول لي يكون زنقيادي أحياني الباقي بلا إمات ولا تنازح ولا شمات آتاني الباقي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعظم عني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليه تسليماه نفع الأنفع دعا كلامي إلى شكور من سخر للخلق بقائي زاء من ربي يا مالكي خليلي والحبيب وقد مها عني يداهي الطبيب برأني من كل هيب ومرض وخاد لي الصحة في كل غرض أنا من ناجو فجي سيغ بلي ما قلت جالي فم دال نيمبوجي ما فكو با سانتال كو نكو نينا جنا أمشي مم يا كار لول واي لوم تي يا كار gis na ko ba gisee lu kawe lu kawe njortam ci moom ci taalibeem mhm. waaye cofeel gi dox diggam ak moom alhamdulilah alhamdulilah eh, naa ko waxee noonu sant ko loolu gërëm ko lii nag man maa fi sàkkul ñu di liggéey bi ak xewal yéen ko moom xewal ba kenn ku ne barkeelu ci sant na sëñ ba sant na cant gu rëy loolu la ma nii naa li sant yéen ñëw na ngeen ko santal sëñ Moussa te dinaa fa ñëwaat santal ko sëñ Moussa ne ko yàgg naa am ci moom yaakaar mhm. waaye lu ci doon yaakaar gis nga bis lu koy jor ci yitteem ci pasteefam ci yéeneem waaye leen mi ngi koy dénk maamam. alhamdulilah jërëjëf Mbacke kon sëriñ bi sëriñ Moustapha moo nu yónni woon ne woon lépp nu jaaree ko ci yow mu doxale sa diggam ak sëriñ bi mi ngi koy nuyu mi ngi koy sant di ko gërëm di ñaan suñu borom mu defal ko ci jëmmam ji nam defale woon euh, euh, gaa yu baaxee ci seen at yooyee suñu borom defal ko lu raw bi itam mi ñaan ci barkeb Cheikh Moustapha Karim mu am ci ndam loxo yi kenn mësu koo am loolu la waxoon ne buñ jàkkaarloog moom nan ko wax mi ngi feddli waat laxasaayam di feddli pastéefam di fet dolli ko waat yitte di dolli waat cofeel ci moom loolu la nu boole woon nun ñi nga xam ne sunu maam yi dafa àndoon ak sëriñ xam sëriñ Seexul Xadim ànd ak Cheikh Moustapha nun la jukki woon ne liggéey boobu yéen a ma ko day liggéey leen ma ko ci njiital Baye Sëñ Mbàkke Géey Ngàcc mu jabal njabootam gépp ak kilifa yi ci yoon Daaru Xudoos yëpp ku ci ne sab taawa ngi nu ànd indil liggéey boobu ci sëriñ bi di ñaan mu yàgg fi lool suñu borom defal ko ndam loxo yi kenn mësu ko am ci yoon wi nag ba mu sa sooba léegi loolu Cheikh Moussa di ñaan jërëjëf Mbacké waaw lu mu ci ñaan dana ko am alhamdulilah waaye pasté bi mu ko def ndax yi mu yéen yi mu tànn ngeen def ko mm-hmm. loolu day pasté bu rëy rëy bu sore sore ba tax na lu mu ci yéegaa bëgg ñaan ko ci fas ko ci loolee dana ko am man maa santaar sama jant bopp ci doyloo gi ma ci doyloo digg ma sëriñ bi ndax diggante ma sëriñ bi xam naa ni mu toll waaye mayit may ñaanaat sama ñaanu bopp sëñ Moustapha suñu borom sàmm ko bàyyi ko mu sut maamam yëpp aw fan te mucc te àgg bëgg a àgg te ànd mu taxaa liggéey bi yàgg yàgg amul ku lay werante te ka ŋaayoo ci mustafa sheikh mustafa santal da cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ŋaayoo ci mustafa